jaajëfatee jaajëfatee sama gars yi Mister Shake la namm naa leen gëj naa leen gis depuis les États-Unis côte ouest gars yi tey dama ñëw defal beneen vidéo wax ci situation élection yi président Sonko Macky Sall conseil constitutionnel nee na yeewu askan bi ñoom Ousmane Sonko duñu bokk ci élection yi Déthié Fall laa doon seetaan léegi mu wax ne vraiment loolu daf ka jaaxal moom ci boppam sax boo ko xoolee kanam gi dafa choqué waaw léegi nan la ñuy demee ci ay élections yoo xam ne Ousmane Sonko du bokk Barthélémy Dias du bokk Aïda Mbodj du bokk ñi nga xam ne ñoom ñooy bopp yeewu askan bi du ñu bokk. waaye ay nit yoo xam ne kenn xamu leen <coughs> ñu mat juróom fukk rek ñooy dem lire Antoine Diom, ministre mon modèle Ben ndogal arrêté mu def ko mu mais nous, Ousmane Sonko vraiment naïfs, naïf crédules ils ont été très naïfs ils ont été très crédules de penser que le conseil constitutionnel allait débouter Antoine Diom. nous dañu yaakaaroon ne euh, Antoine diom ñëwee dañ ñan ko waxo dëgg ñun Ousmane Sonko dañuy bokk lan moo tax seen marche bi biñu waron def préfet bi né du do leen fi du marche ñom tam ñu and ci tay ñu ñëw rek sen dig légui lan lañu bëgg xam moy ndax euh, opposition bi lan lay def ndax gis nañ Bamba Fall mu génn mu né dëkk bi ku ko fi taal ku ko taal dina dinañu dinañu lakk solu bon <laughs> mel na ne léegi Bamba Fall moom moom mooy Macky Sall mel na ne moom mooy Antoine Diop di tëkku nit ñi li ñu bëgg xam mooy ndax élection yi Ousmane Sonko dina nangu Macky Sall ne doo bokk ci élection parce que Ousmane Sonko président Sonko moo ñu wax ne Macky Sall troisième mandat la bëgg bu fekkee ne dafa dafa sàcc élection yi wala mu ne yow askan bi du bokk ci élection yi léegi. noonu lay def ba def troisième mandat léegi li ci doy mooy Déthié Fall ñetti mbir la laajoon euh, euh, attekat yi bi ci njëkk mooy ne Ousmane Sonko dafay bokk ñoom ñoom dañuy bokk conseil constitutionnel ne leen doo leen bokk bi ci topp mooy Benno Bokk Yaakaar dañoo juum ëppal ci euh, li ñu leen laaj benn kon ñoom waruñu bokk ci election yi conseil constitutionnel nee na dañuy bokk beneen bi affaire parité la defe naa jigéen ak góor ak yooyu mais loolu yëpp lépp lu ñu wax rek ñu ne leen bokk leen. léegi nag li ñu bëgg xam mooy ba Déthié Fall nee na dina dem toog ak ñoom Ousmane Sonko ci la ñuy xool lan la ñuy def léegi lu ñu bëgg xam mooy est que lii du taal Sénégal jàppeet loolu moo jar a wax wala ñu Ousmane Sonko dañu nar a toog ñàkk fayda ba Macky Sall daal leen nax wañ seen loxo def. lu xam ne vraiment ñëpp la jaaxal ñëpp la bett mais nag man de bettuma xam nga lan moo ma bett préfet bi ministre de l'intérieur génn arrêté yéen ngeen nangu ko di wax dañuy dem ci attekat yi man loolu ma jaaxal ba ministère de l'intérieur waxee li muy wax Ousmane Sonko dafa waroon génn mu def déclaration Khalifa Sall dafa waroon génn mu def déclaration mais ngeen toog rek naan non non juge yi dinañu atte waaye léegi juge yi atte nañu yéen woon juge yi ne atte léegi juge atte nañu léegi lan ngeen di def est-ce que c'est pas trop tard élection yi euh, euh, euh, maire yi dafa jaaroon yoon man ma génn di gërëm Antoine Diome génn di féliciter Macky Sall ma ne ah Macky Sall de xëy na bëggul Sénégal tàkk Antoine Diome bëggul Sénégal tàkk ndax nga def ay élection nu gañe leen waaye ñoom xëy yaakaaruñu woon ne nii lay demee ne Aliou Sall dinañ ko gën a moo taxoon ñu defar seen élection mais nag looloo leen métti ñu xam ne bu ñu demee ci élection député dañ leen di duma Ousmane Sonko dañ leen di duma surtout nag dafa ànd ak ñoom ab Ablaye Wade mais lii dafa doy waar Sénégal nag ñoom ñu ngi leen di wax ay waxu football Sénégal beneen dugg na fii di leen jéem a naxe ci ay affaire coupe d'Afrique ak coupe du monde xool ndax Sénégal yi yéen di ngeen nangu élection yoo xam ne kujje bi duñu bokk ndax Macky Sall noonu rek lay dem waaw Macky Sall li muy def koy Karim Wade doo bokk. Khalifa Sall doo bokk tey nag nee na Ousmane Sonko du bokk dinañu xool ndax soo Sonko li ñuy def Karim Wade def ko Khalifa Sall moom dina ko nangu wala du ko nangu mais lii gis nañ tam keroog muy ree di def laay bam di ree di wax Antoine li mu wax nii dafa reelu ndax yëfu dof la def waaye tey yëfu dof yooyu ngeen yaakaar na moom la def te de attekat yi moom la ñu àndal vraiment li li dafa doy war dafa dafa di lo xamné suñu démocratie dafa gëna a ginnaw ñun nak Macky Sall man de Macky Sall décevoir na ma décevoir na ma trop ndax président bu xamné ñaari at mo la déssé wala at ak genn wàll ñu ngay tok di wax naan lima déssé ci président lima wara a def du xajagul bay jeex ba paré di def yu mel nii loo mën na ak li fi amon ci affaireu Adji Sarr ak Ousmane Sonko mois de mars dëkk bi tak ah tay ngay jéem a wax ne Ousmane Sonko dafa dafa siif Adji Sarr ñu dem ba ci biir gis ne xëy na complot la ndax ñu bëri dugal nañ ci seen loxo ah sama xarit Mamour Diallo sax ma ko ciy tudd ah tey capitaine Touré ñu waroon ko woo laaj ko lan la xam ci affaire Adji Sarr bi ñu ne du ñu woo capitaine Touré <laughs> mais Sénégal ban justice moo fa Sénégal ban nan ngay defee nan ngay attee lu mel ni affaire Adji te capitaine Touré bi nga xam ne moom moo def enquête waxtaan ak Adji Sarr waxtaan ak euh, euh, nu mu tuddati Khady Ndiaye capitaine Touré kay lu bon bon di ko woo boo ko woowee nga ne ko ndax lii wax lu mu wax ci procès verbal bi ndax procès verbal bii yow yaa ko bind wala bindoo ndax Adji Sarr yow yaa ko déglu wala dégloo ba nga ko dégloo ndax lii la wax ne Ousmane Sonko loolu la fa def dafa génne pistolet daf ko dafa euh, sëyeeg moom loolu yëpp dañ ko war a laaj mais ñoom dañuy xool lu leen arrangé ñu def affaire Adji Sarr dañ ñoo dañuy woo Sonko mais lu tax ñu woo Adji Sarr woo Khady Ndiaye woo Mama waaye président Sonko kenn ñemewu ko woo ah, ah, capitaine Touré kenn ñemewu ko woo léegi nag Macky Sall bëgg jaaree foofu fàtte xam na ne bu demee ci affaire Sonko moom buñ ko woowee tribunal Sénégal yëpp ay génn léegi mu ne xaaral ma jéem a fexe ba rëq ndig Ousmane Sonko mais faire dafa vu gis lu gis lu dolne? ay élection 11 euh, équipes 11 titulaires 11 départs, départ Sénégal de football FIFA ne non non Sadio trop du bokk ñi fait ci bande touche bi ils ont xamul football Sadio carton rouge fukki euh, euh, footballeur ak ben on super nga jox len carton rouge lii dafa jéggi daw waaye dinañu xol ndax Macky Sall mo len ëpp fulla wala yéen tamit di ngeen réagir ndax sénégalais yi di ngeen réagir wala do len réagir loolu dinañ ko xool waaw gars yi Mister Shake la mais en tout cas dal ñu ñuy wër ta leer moy ñu Ousmane Sonko bu ñu nangoo lii moom bu yóbboo nak bu ñu kenn sonnalati ci affaire troisième mandat kon bu yóbboo rek ngeen bàyyi Macky Sall